ndax ni ki démb direction générale des élections daf ko daal di rejeté tey jii ñoom coalition Yewwi ak seeni avocat danañu daal di xëy dem ca cour suprême ndax dañ leen a wax ne leen am ngeen 24 heures ngir ngeen mën a def ab recours yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Ousmane Sonko njiitul Pastef maire bu Ziguinchor ni ki démb daan nañ indi ay leeral indi ay explication ci lu jëm ci coow li nga xam ne moo am ci coalition Yewwi Askan Wi ak mbifi nga xam ne moom lañ leen di mbifi nga xam ne wax nañ ne respecté wul parité te wurta dem ci élection na ci ay leeral nee na amul complot boo xam ne am na ci te Macky Sall jëndul kenn te moom jamono ji am na xel mu dale ci Khalifa Sall Déthié Fall ba ci Saliou Sarr moom Ousmane Sonko nee na amul benn jafe-jafe boo xam ne am na diggante Barthélémy Dias ak Khalifa Ababacar Sall ay nit ñoo jóg di yàq waaye nag mbir mi ni mu demee ak ñàkk déggoo moo amoon ci liste bu Ndakaaru maanaam loolee bokk na ci li ko waral Barthélémy Dias moom nga xam ne mooy tête de bu Dakar dafa bëggoon ñetti maire yoo xam ne ñoo koy gunge ngir nag mu département bi waaye nag Barthélémy Dias moomee dañu ko mujjoon a wax na ko roccil benn maire mu koy nangu boobee xaw naa yàgg Khalifa Ababacar Sall mi waroon a jël ay dogal moom tim yéex naa jël ay dogal waaye nag njuumtale waaye nag bu ñu ko tuumal Khalifa Sall bu ñu ko tuumal Déthié Fall Ousmane Sonko ne nag ñi nga xam ne ñoo nekk di leen di mbi fi foore di leen di ŋàññi ñoom waxoon nañ leen lu mel ni midi ndax dañu leen waxoon na leen coalition Yewwi Askan Wi 70 pour cent ci ci département yi na dafa dem ci département yi ñoom ñëpp ak noo ko mënee ak na ko xalaatee nga defee ko noonee noonee la ñëpp waxoon Khalifa Sall Ousmane Sonko nee na bi Khalifa Sall jëlee ay dogala munta ñàkk am ñoo xam ne dinañu kontaan waaye tamit il faut am ñoo xam ne duñu bekk mbir mi noonee la demee ndax nag investir nekkul mbir moo xam ne mbir mu yomb la te yeneen liste tamit yéen a ngi fay dégg maanaam coow lu rëy ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien moom Ousmane Sonko nee na société civile bi nga xam ne ñooy wër di mbapp mbappe di kàcc loo xam ne dara du ci dëgg ndax dañoo jot xaalisu Macky Sall ñooñu dañoo war a seen gémmiñ yeewi askan wi amul kenn koo xam ne mën nga ko yàq kenn ku nekk am na lu la naqari ci ni nga xam ne moom la ñu defee investiture yi waaye nag li am ba des la mooy dañoo war a fàtte suñu bopp ngir askan wi yaakaar ji askan wi am si ñun yaakaar joojee bañ a tas Ousmane Sonko ne bëri na ay liste yoo xam ne wax nañ leen na leen du ngeen bokk ci élection yi waaye kenn waxul seen i wax yeewu askan wi moom département Dakar rek lañ ko wax coow li tollu fii loole nag mooy firnde la yaakaar bi askan wi am ci li nga ne mooy yeewu askan wi moom Ousmane Sonko nag gaaruwaale na ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne ndax Madiambal Diagne fan yi ñu génn dafa bi dox diggante Ousmane Sonko ak Khalifa Sall moom Sonko daan nay wax ne am na ci ñoo xam ne bëgguma tudd seen tur waaye nag dañoo kàcc bu ñuula maanaam dañoo fen bu ñuula Ousmane Sonko ne askanu Sénégal ci libération ñoo wër te nangu élection législative te du si bokk te nga xam ne mbir mi moo koy faca maanaam jàmmarloo surso a nee na Ousmane Sonko corps à corps la wax ndax nee na Macky Sall xamul waxtaan xamul amiso Macky li mu xam mooy rapport de force defante ko ak mooma l'observateur Aminata Touré ñoom waa benn bokk yaakaar tontu nañu Ousmane Sonko nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoo def seen i njombe ñoo def seen i tooxi nangu ñoo def seen i giirawaal yi Ousmane Sonko ne seen liste bi nga xam ne bëgg nañu benn yoon seen a bokk ci élection yi te nag bokk ci élection yi ndax loi bi dafa wax lu mel limité ndax benn li nga xam ne moom lañ sàkko ci ñoom ci ay parrain dañu ko daal ëppale te ñi nga xam ne ñooy waa direction générale des élections lan moo tax ñu jébbal ab courrier lànk bañ ko jëla loole du dëgg du yoon te nag dinañu leen ci topp deux poids deux mesures loole moo war a jeex ci réew mi mu am ndey mu moomul ndey waaye nag dafa am mbir moo xam ne ñoo ko a fajal sunu bopp nee na réew mi bu dee day tàkk administration bi ak justice ak Macky Sall ñoo koy te nag Macky Sall bu dee am na benn maire bu bokk yeeyu askan bu dee daf koo révoqué maanaam daf koo déjjati 24 heures du ñu ko ko ci bopp réewum Sénégal te Ousmane Sonko nee na Macky Sall dafa war xam ne ci sursis la nekk Vox Populi ñu fekk fa Aminata Touré ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoom nag LD Debout waa LD Debout ñoom ti wax nañu lu mel ni mi di ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu tëg ma la waa LD Debout ñoo ngi ci coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag nee nañu maanaam Macky Sall ci boppam dafa war a ñàkk assemblée nationale dañoo war a gagné Macky Sall te nag bennoo bu ñu ko gagné assemblée nationale loolee day tax yàq gi nga xam ne moom la Macky Sall ak ñi mu àndal nekk ci réew mi yàq googee dafay dakk ñi nga xam ne ñooy waa LD Debout nee nañu bu dee Yewwi gagné na maanaam saax-saaxe gi nga xam ne moom la ñuy saax-saaxe suuf si ci réew mi maanaam saax-saaxe googee dafay dakk waa LD Debout ñoom nag nee nañu su dee Yewwi askan wi gagné na maanaam saax-saaxe gi ñuy saax sunu ressources naturelles yi loolee tamit dafay dakk waa LD Debout nee nañu bu dee Yewwi askan wi gagné na élection yi maanaam def lu ne weng te dara du la ci fekk loolee tamit dafay jeex ci réew mi ñoom nee nañu bu dee yeewi gañe na démocratie bi nga xam ne saax-saaxee nañ ko loolee tamit dafay jeex te nee nañu bu yeewi gañee dafay tax Macky Sall xelam du dem ci ñetteelu mandat ndax Macky bu ñu ko bàyyee mu gañee dina fi jéem a def ñetteelu mandat te bu boobaa ñu bari mën nañoo dee bu ñu bañee nag nit ñi dee nañu fexe ba benn bokk yaakaar ñàkk élection yi du samay kàddu waa LD bu ñoo ko wax ma ngi ci journal bi di Vox Populi yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ba tey ñool-ñool ma ngi am diggante Amsatou Sow Sidibé ak journaliste bi di Pape Djibril Fall Amsatou Sow Sidibé na daf koy porte